loolu la ñu Ousmane Sonko bu defaan conférence de presse. ñun dañuy fanaan di daggate. conférence de presse bi mu ngi wax loo xam ne euh, dafa amal njëriñ askan bi. Mhm. mais et, et d'ailleurs foofu laa foofu laa bëggee da nga ne sànq. Mhm. souvent bu amee un oppresseur l'oppresseur tamit mën na dem ba être obligé d'adapter Euh, sa riposte euh, mu nekk à la hauteur euh, des de de des des attaques subi mm. est-ce que du erreur bi foofu la nekk parce que jàpp naa ne Ousmane Sonko na mu def ba xëy jóge plus fort reste nekk troisième ba mu nekkee troisième ci analyse présidentielle bi tous les journalistes disaient que ce monsieur la est le prochain président de la de la République du, mm. Sénégal mu am un boulevard rien n'a mu am un boulevard des perspectives mm. mais dafa mel ni dafa am moment boo xam ne da ngeen def erreur ci seen stratégie de lutte mm. et de et de et da ngeen ci boole lu ci lu ci lu ci bokkul non xam nga xam nga malheureusement quand boo jàppee ni da nga nekk en face d'un régime boo xam ni certes jàpp na la comme un opposant di la di la galgal ça se fait gënul man président je n'aurais pas fait l'opposition serait totalement libre di def liggéeyam tant que la constitution leur permet de faire ce qu'ils ont à faire mais bi mu demee ba am le sentiment que nekkatul moom et sa démarche politique et son projet politique la ñuy viser wala yooyu mais que ils veulent complètement le sortir du champ le détruire et détruire son projet et détruire même sa personne parce que am na yooyu def doomu aadama bi ku nekk doom nekk yaay nekk nekk nekk père de famille nekk nekk nangam nga attaqué ko dans sa personne et en permanence boo xoolee le le temps de la persécution de Ousmane Sonko ni mu yàggee amul ko ko mën a waxuma sax Sénégal loolu amu fi mais même en Afrique ci pays yoo xam ne amuloon benn démocratie. tu te dis oh, est am na. Oh, oh, mais mais Sénégal Wade a fait 26 ans. Euh, gis gis gis façon régime bu génn régime mu euh, régime mu Senghor manque total de liberté euh, dugg régime Abdou Diouf Maïmouna le le le nombre de de de morts de prisonniers de nangam sous Macky sur Pastef ça n'a rien à voir avec Abdoulaye Wade à l'époque ça n'a absolument rien li mu dund moom gis nga amul homme gis nga ça n'a rien à voir temps bi xëy na gàtt na par rapport ak la l'opposition de Wade mais le l'intensité de la persécution de Ousmane Sonko amul ku ko dund Wade dundul lu mel noonu dund na certes des choses mais il avait des gens en face de lui yoo xam ni c'était pas sa personne qui était visée c'était son projet politique dañu doon galgal l'opposant waaye fii c'est comme si ces gens cherchent à détruire la personne mais kooku dana yàgg foo xam ne il se défend il résiste pour ne ne pas xam nga ce qui est intéressant ak yow dañ koy fàtte mais vous êtes sociologue euh, moo tax sama li may wax di téere da nga koy nangu vous êtes sociologue c'est-à-dire il faut ñu dama bëgg ñu ñu ñu ñu ñu analyser la dimension euh, socio sociologique euh, de de de de de de cette affaire-là parce que euh, Ousmane Sonko dafa génn ci élection yi ñu ne c'est le futur président de la hmm. République euh, il a toutes les chances 2021 mu am dossier de de de viol bu ñu bu dal ci kawam mais malgré tout ce qui s'est passé malgré tout ce qui s'est passé 2022 dañ dem élection mu Sénégalais yi def ko maire de Ziguinchor absolument janvier juillet ñu dem élection ñu invalider liste national bu yeewi askan wi sénégalais yi dem voter jox ko suppléants yi. jo jo seen seen xam nga suppléants yi souvent da ngeen di jël euh, ay ay ay. ku rek suppléants yi ñu jox leen ko gaa yi gaa yi brisé. la la la majorité mécanique de de de ngeen ñu nekk en en en ballottage. Mm. ngeen am mm. quatre vingt quatre vingt et un députés. quatre vingt députés. ngeen am quatre vingt quatre vingt députés malgré le dossier Adji Sarr mais dafa mel ni euh, à partir des des des des des législatives mais dafa am benn genre arrogance. bu bu bu ñëw dafa am benn genre démesure dafa mel ni mbir mi dafa mujjee diis ci seeni mbagg mais saa boo leen dajaloo yéen a ngi naan sénégalais yi nañu wàcc ci mbedd bi daaneel régime bi yéen a ngi naan xale yi euh, dem leen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen xeex jàmmaarloo ak ñoom euh, Ousmane Sonko di naan euh, xam nañ magistra bu nekk foo foo dëkk naan boo leen demee seen kër yi coffre yaa ngi fa naan mag c'est-à-dire ay discours d'une d'une violence yóbbu d'une violence mm. indescriptible boo xam ne mu mel ni loolu dafa dem ba commencer étouffer nit ñi li étouffer nit ñi bokk na ci les gens ont eu peur en 2021 avec ces événements là ñu ñam ko ñu xam ne saf na ñu ne duñ ci delluwaat mais ñu bëgg ñoo yóbbu ci loolu ñu ñëw jugement ñu joxe jugement mais ñu dundu moment yu metti mm. économiquement politiquement euh, socialement à un moment donné est-ce que nit ñi tamit Euh, demuñu ba ba ñoom tamit ñu observer recul mm. est que ñoom sénégalais waxuñu ñii bu ñu continuer woon wóoluñu dinañ leen yóbbu pale dinañu faire aboutir seen projet mais yoon bi ñu tàmm tànn baaxul xam nga boo xoolee li nga wax damay dellu si yow ci sa sa analyse pour pour démarrer foofu yaa ngi wax ni après les élections législatives la mbir mi yegg foo xam ni ñu euphorique est-ce que on a toll na ci suñu ay ay épaules boo ko analyser autrement da nga naan après élection législative et ce qui s'est passé nga gis le pouvoir le régime se sentant vraiment menacé parce que ba foofu ñu ngi naan cette affaire la mën na bañ a dem dem nañu ñu coince en génne génnee le dossier Adji Sarr factice complot def lu leen neex en disant dina ko briser briser wu ko mu yéeg ñëw local jàll maire yi malgré li ñu def ñu ñëw élection législative ñu jàllati. man waxuma ne dossier Adji Sarr est factice de. c'est ça wax nga ko kay. non waxuma loolu de. c'est c'est waxuma loolu de je respecte Adji Sarr. waxuma après le régime dit le régime après la vue des résultats des législatives et c'est là qu'ils ont pris conscience que lii 2024 la jëm te te ce sera au premier tour. mais qu'est-ce qui s'est passé après moment-là que le pré le, le régime justement. à à re reprofiler l'appareil répressif xoolal après li ñu génnee ci charge ak persécution moo tax ma ne la benn moment da nga naan on était devenu fi la ñu gën a dëgër fi la ñu gën a peut-être euh, résister dañu yëkkati niveau de résistance bi parce que foofu la répression bi yokkoo. ndax ñooñu il se disait non avant répression lan moo indi le pouvoir Euh, euh, des des des moyens répressifs. lan moo ko indi parce que le pouvoir se dit bu ñu leen bàyyee ñii bu ñu leen sakkalul beneen pexe on a tout essayé. malgré ça ñu ngi grandir. mais il faut qu'on trouve le moyen maintenant de détruire ça et de pulvériser dañu jëli bu doon guerre da nga naan arme yu ngannaa yu gën a sophistiqué la ñu indi maintenant est-ce que c'est le moment qu'il fallait choisir pour Sonko et nous tous qui sommes dans le même projet de dire on baisse les bras on ne résiste pas ñun le citoyen tu n'as Maïmouna aucun moyen bu dul ta liberté consacrée par la constitution pour manifester pacifiquement et nanguwul ni toutes les manifestations demandées et autorisées ont été menées de manière absolument pacifique mësul am problème maintenant bu fekkee loolu da ngay dem ba di ko tere nit ñi amatuñu droit def ko bu fekkee le procès bi nga ko bëggoon téje pour bañ mu nekk candidat parce que wax nga ni kii jàll maire de Ziguinchor ñëw conduire une équipe une liste de de suppléants du ma du sax candidat mais am autant de députés yóbbu l'État à ballottage le régime pour la première fois de son histoire et de l'histoire du Sénégal bu ñu ko bàyyee mu jël mu jël mu gagné état bi mu gagné le le pouvoir mais non non non xaaral ma yeggale rek foofu amul erreur ba foofu amul erreur ci ñun maintenant bi ñu bi ñoom ñu gisee ni kii il passe et ils ont eu très peur ñu accélérer les dossiers et lépp loo fi gis après mun Maïmouna sa découle du traitement des dossiers judiciaires surtout le dossier Sweet Beauté mais après xoolal fi mu mujjee loolu quand loo bañ bañ bañ Ousmane Sonko nga mën a nangul ni doomu aadama bu nekk pere de famille nekk politique nekk nekk kilifa ci réew mi mu am ñu ko yaakaar jox ko seen kàddu jox ko seen baat voteel ko nga topp ko ci lu mel noonu taqal ko ci ni da koy yóbbu procès pour l'humilier procès bi mujj ci lu dul non lañ la jiiñoon ni yaa dafa am viole ak menace de mort avec arme à feu amul malgré li nga def ci diggante bi nga condamné ko ci loo xam ne ni toppoo ko ci woon mais le peuple sénégalais a la conviction que on n'est plus dans du droit ou dans de la justice on est dans la pure répression mais, et on est dans dans mais, l'élimination d'un adversaire avoir, par tous les moyens mais am nañu am mais bëgg ñu toog ne ne yàcc bu ñu résister mais am nañu am de la de la situation moom dafa ne damu fa defu fa dara. ah xam nga xaaral xaaral rek xaaral Cheikh Tidiane. verdict bi daanu. Hmm. ñu ne ko le bénéfice nu mu tudd en cas en matière de de viol le doute bénéficie à l'accusé hmm. verdict bi daanu ñu ne ko euh, ñu nu mu tudd viol ñu ne ko ñu disqualifier les faits de de de de viol. Hmm. et de menace de mort. waaye ñu ne ko kat yow fekk nga xale bu jigéen. boo xam ne matalul ñaar fukki at ak benn par le moyen de l'argent nga am ak moom relation yoo xam ne waru ko waroo ko amal amal ak moom xam nga lan ci ñi nit ñi jàpp kii pendant deux ans amul violence bu amul ci réew mi amul lu xewul ci réew mi nit ñi di souffrir mu nañu moom deful dara demu fa laalew ci te am na procès bu am bu bu bu dëggal ne euh, même bu fekkee ne viole amul même bu fekkee ne menace de mort avec des armes amul waaye kat dem nga foo warul woon xam nga lii ngay wax kañ lañ ko waxoon ñun 2021 hmm. bi mbir mi éclaté moo tax dara beesul bi mbir mi éclaté la ñu ne ñi ils sont en train de chercher un procès moral pour salir ko wutuñu leneen c'était un procès moral en fait. mais moo tax te procès moral bi xam nga question de nga gëm kii wax la cet état là bu organiser le complot qu'ils ont organisé tous les éléments sont là ak ñi ci taqee ak ñi ci laale leur qualité leur positionnement dans le pouvoir ak leneen bu ñu nee dafa violer ak menace de mort ngooy ci jël ay avocat ñu defoon ko ñëw seen plateau yi yuuxu ko wax ko ci àddina bi yëpp dafa violer ñu ne am nañu ay vidéo ñu ñëw ni am nañu lu ne ñu ne leen génnee leen ko mënuñu ko ñooñu bu ñu ñëwee ba ca cëppaa ndaw ni ah viol kat amul waaye ndekete am na lu fa am kan moo leen di gëmati kan mooy gëm ni ñu waxoon ci àddina bi yépp ni viol am na ak menace de mort ni am nañu ay vidéo ak preuve ba sénégalais taal réew mi quasiment ba ay nit dee ci ñu ñëw ci seen procès bu ñu organiser seen bopp ñëw ni ah ay la yëwan loolu ñu waxoon yépp amul bëgg ci teg leneen kan moo leen di gëm may mën a ko ànd ak sa xel da nga naan lu ñu waxati du dëgg mais loolu ñun wax nañ ko depuis 2011 man nee naa leen bi ñuy créer M2D dama ni li tax ñuy xar suñu tànk tubéy pour xeex lii et toutes les sorties que j'avais faites à l'époque wat cette émission bii sax ñëwoon naa fi ma ni président Macky Sall laay adressé moom laay waxal te dama ko koy ñaan dossier bi fi muy jëmale réew mi baaxul musiba la na ko teg ci suuf mën na ko parce que moom dégg nañ ko mu ni bu dossier naree taal réew mi procureur wax ko ministre de la justice mu wax ko ko moom mu wut beneen pexe ma ne ko bii bokk na ci dossier yi taal réew mi bàyyi ko parce que du ngeen prouver lu amul parce que viol amu fa menace de mort amu fa du ngeen ko prouver du ngeen li ngeen bëgg mooy comme dem na fa ngeen ni koon nañu nii rek dina vraisemblable séq na fa dara def na nangam pour yàq deram mais loolu may mun a c'est tellement laid c'est tellement petit ci démocratie ak état de droit ba nga xam ne boo ko tegee sa principal opposant yàquloo moom yaa ngi koy yàq deram c'est vrai yaa ngi koy xañ lu bare bare metti na ay njabootam metti na ay partisans metti na ñëpp mais mais république bi nga balaa fa parce que parce que xam nga lu taxoon man ma tiit ci yaa ngi wax ni président Macky Sall dafa dem New York ñu yuuxoo ko donc ñooñu image du Sénégal la ñu salir xam nga yaa ngi koy wax léegi mais boo jëlee l'opposant principal bi nga nangu yow ni